waa démb waa démb nga fi toogal souvent comme li ngay wax alors da faral di wax ne man waa ñii laay waxal ñi ngay waxal ñoom tey est-ce que yow ca la nga dundoon démb lii ñuy waxtaane tey jii muy la méritocratie ndax daan nañu ko jëfee ndax bu njëkkoon ku ne la nga yelloo daan nañu ko jox. bu njëkk li nga xam ne mooy base bi mooy base fondamentale bi muy justice ak njub démb la ëppoon tey. nun daan nattee yellenteef maanaam mérite nan lañ ko daan nattee ba jox ko nit takkal ko ndombal tànk ci pénc wala ci dëkk su dee ndombal tànk nag dem na ba ci lislaam sax nee nañu ilimaani jàkk jigéen ñaa koy seede démb ak bërki démb mais tey jigéen du fi fal ilimaan lu tax jigéen du fal tey ilimaan ah ñoom ñoo xam de nu ñuy fale ilimaan léegi kii sama yoon nekkul ci loolu mais <laughs> démb démb laa Ibou bàyyi sama papa ah, bàyyi jàmm non non dama koy laaj rek naka la ñuy fale démb ci démb ak tey laa nekk ci démb man ci démb laaj on fait le takkal nit ay ndombal tànk ah. nit daan na am mérite ñu fal ko ministre ñëpp ne kii unanimement ah daf ko mérité mhm. ndax ba waa ji ànd ak moom du démb tey la du tey démb la mm. ñu fal nit député wala ñu jox ko ndombal tànk ci dëkk bi ñëpp ànd ceeg moom unanimement waaye yan critère lañ daan basé wu pour tànn kooku ci dëkk ba ndax ci ay jikko la ndax ci juddu bi la ndax ci bëri koppar la ndax eh, ku ne xam na ne société bi ñu nekk moom tey jii boo bëree alal lool pour nga takk ndombal tànk day yomb. ndax nag dañuy foog ne ci ci ci ci yëf yi nga bokk. waaye nan lañ daan tànnee démb. ñu daan tànnee démb. Ah. ko. waxal ba pare après. non dafa non man du ma jaajëf ñu la. parce que kii xam na ne tu es important. <laughs> parce que kii bu ko xaar. nii ndax yaa ngi may déglu te doo ma bàyyi ma dem. xaar ah, tu poses une question mais il faut attendre mais les téléspectateurs savent nettement que ne tu es incorrect. waa ci papa vas-y nee naa la bu leen toog. ay. billahi barka ma. non su ma su ma bëggee wax mu interrompre ma. waaw waaw waaw question ñëwal ci li la Youssou posé question c'est-à-dire yéen démb naka ngeen daan joxe nit mérite am. mérite ko daan def danga ko daan tànn ndax démb ak bërk démb bala nu laa jox dameel wala teeñ walla lamasaas wala calaw wala jàmboor lu ci nekk danga koy xool ci yow nga mat ko sëkk sëkk sëkk. nan la ñuy démb naka ngeen daan def pour xam ne góor gii dey buñ ko mayee soxna si mérité na ko. nin ko daan def. su demee ba toll ci waxambaane la wala mu jógee daara foofu na ñuy tàmbalee ak moom benn dinañ ko daggal ak tool ñaar dinañ ko dénk aw fas wala ak jur suñ ko daggalee tool xool ay moroomam yi mu tolloo lépp mu mën ci ay moroomam di récolter loo xam ne mënuñu koo récolter jooma ngoog de mu daggal la aw sas daggal kee aw sas nga ñëw récolter ñoo xam ne da nga leen a mën fuuf gën leen a nangoo teel a xëy gën leen a nangoo mujjee wàcc gën leen a gën a nangoo dee ci ab tool mhm. kooku jom la ak ngor soo ko gisee ci góor loo yor dénk ko mhm. ñu dénk na ko aw fas mu jàpp fas bi di ko toppatoo ta suñ la ko dee dénk balan la koy dénk doon la koy dénk ba nga xam ne aw mool lay doon wala nu koy loppante nga xam ne soo yëkkatee di dafa naan na baax ak du baax ñu dénk la ko nga demaat demaat dem ba fas wa di mbajantu soo ko takkee mën naa sànku jeeg yow ñu ne ah <laughs> ngosi ko jox jabar mu yor ko ku mën a xont fas mën naa xont jeeg waaw waaw ci fas wa waaye nag léeg-léeg nga gis ci góor ba di ko dénk ak dur wala nga jox ko aw fas mu dee ciy loxoom ci ñàkk toppatoo du xont du xont xamul sax luy xont foofu nag la góor gu am mérite ak góor gu amul mérite ñëwee léeg-léeg jigéen dugg ci loxo ba muy ñëw oh te bu tàng doo ko néeg a teg ci loxom bunt bii du ci xaj sangu suba ak ngoon mu dugg say loxo rek maara day tàlli ku mu jéggi sam ndox nga tuur ko soo ne waa li lan la nu ne yor baa baaxul ñu ne te moom de yor na ko ñu ne waaw waaye góoru giléem la ñu ne luy góoru giléem ñu ne day sëgg ci garab gi am xelam nekk ca garab gee mooy ñi nga xam ne doon yor jabar war ko yor dara manqué wul ci ñoom mel ni ko neex mais doonoo am nattu maanaam lu jafe mhm. lu jafe rek la ñu lu nu amul lu teguwul seen loxo lu teguwul seen loxo la topp daw xam nga ak càcc dafa neex mhm. ak càcc maanaam ak càcc ci wet boobu diggante góor ak jigéen loolu la lewul nga di ko sàcc moo gën a neex fuuf loo xam ne daf laa lew ndax li la law kay soo demee da ngay kenn li la law li la law soo demee wël bi gàng la est-ce que comprendre mais léegi da nga fay nekk di ah ak càcc dafa dee waxaguma lu ñaaw de déedéet mais li may wax na ko nit ñi xam parce que ñoom dañoo jëli la xam nañ na ngeen nga xam na yenn yoo xam ne soo ko dee def mm-hmm. waaw nga xam ne ci la coono bi gën a nekk ci ngay ñàkkee sa alal mm-hmm. ci ngay demee ci ngay déggee ay saaga ci ngay déggee lu nekk mais ca loola ngay topp di ko labatte la nga denc sa kër moo dàq lii foofu dafa bëgg loo xam ne da koo da koo da jafe góor da koo bëgg da cay am na góor ñoo xam ne sun la labatee soo góorgóorloo tuuti nu takk la. ndax kumpa ga. kumpa. sooy góorgóorlu rek nooy takk mais bu ne ñoo yàkkamti ba mën a tur a xàmmee ñooñu. te kumpa kumpa kumpa lan la. la la bu kumpa am na ñu ne moo rawu ñay. Mhm. am na góor ñoo xam ne kumpa rek nanu bañ. lan mooy kumpa jigéen ci góor. ah lan la à part à côté sexuel lan la góor war a umpale ci jigéen mi nga xam ne dina ko may envie mu dem takk ko. ba mu mérité nekk soxnaam. ba mu mérité nekk soxnaam jikko sax moom soo nekkee moom rek di nga ko xam jikko soo nekkee moom soo doxalee su dee yeewu nga tuuti. Mhm. rek di nga ko xam. di nga xam li nga bëgg mu xam ko li mu bëgg nga xam ko di nga ko ci xam ndax jikko dafa nëbbu. waaw képp koo gis ci këru àdduna muy sëy ak soxnaam ba génn àdduna soxna sa génn àdduna wala nu tàggoo. Mhm. sunu borom jeexal diggante ba. Mhm. kenn ku ci nekk am nga loo umpale ci sa morom. nit ñëpp. dug sëy rek waaye mbirum àddina ku ne am nga loo xam ne xamal nga ko sa bopp loo xam ne yow rek yaa koy dugaale ci bambel dans dans le cadre général loolu yow la yow sa diggante ak sa borom kese la. d'accord kumpa balan la Youssou noppi Sophie yaa perte damay wax may may di nga bàyyi a briefing. non non non dama gis ma laajee avant may répondre te yow su ma defee lool ay di bóoru sarax Mm-hmm. ah su ma defee loolu lem sax. parce que ñun ñaar ñoo bokk kër gi ñoom xam nga ay ay. ay invité waaw léegi nag mu def lii nga di ko invité invité Sénégal invité waaw invité dañ koy dalal mais ñun entre ñun xam nga mun naa la am loo xam ne su ma la ko defee. ni ngay tàngee nu bokk ak invité su ma ko defee loolu moo tax. xam nga yow sama sama gerte su ma nee nii mu laaj ma su ma nee nee mu kii ma. damay génn ci mbedd mi léeg-léeg daa tase koo xam ne. mérite la benn manquant. te ma ma daw daal di koy wuyu ñëw taxaw mu ne ma mais del bàyyi Benoît dégg nga dee ko bàyyi mu nekk dans le calme Benoît kat moo koy yolomal <laughs> man kaa ngi tuddee kooku leer na dama ne kan mooy yoola man bëgg naa yow xamuloo jox ma ko incha allah ñu jël téléspectateurs yi 88 628 89 90 xam nga Safia 00 221 33 841 20 maa ngi ñëwaat ci yow ci yow laa jógee dem ngi ñëwaat ci ah. laa jëm ah, d'accord ayca très bu ma bu ma dégloo euh, intervention Youssou <laughs> ak Khadim daf may Sona Samb est-ce que daf may en fait may retourner loo ci ci ci idée bi ma amoon avant uh-huh. <laughs> di expliquer rek Khadim tout à l'heure yaa ngi doon expliquer ne am na ñoo xamante ni am nañu ay diplôme wante dinañ fa teg nit mu def li nga xamante ni sax parfois ki am diplôme du ko def mm-hmm. mais bu ñu xoolee li retardé suñu societé parce que quoi que l'on dise bu ñu nekkee di def émission baax na ñu bàyyi ci xel mooy ne père wax na ko ci début bi. moo mm-hmm. ne mais pas les hommes qu'il faut. Mm-hmm. à la place qu'il faut. dama jox exemple bu fekkoon nappkat mm-hmm. yëpp dañ leen a yóbbu woon géej euh, ñi ñiy bay yëpp ñu yóbbu leen ñu defi agriculture non économie bi day bouger rapidement mais da gis koo xamante ni sa fi day def liggéey sax boo xamante ni amul choix moo tax mu koy def. bari na fi. am na liggéey bi mi ngi koy def defu ko ak xol parce que amul choix. Mhm. kooku sax dañ naan mérité wul fi mu toog. Mhm. pas parce que du ay diplôme wala dara de. c'est parce que foofu mu nekk mi ngi fay liggéey di fa gagné xaalisam mais liggéey bi da koy def ak naqar. kon am na tey ñoo xam ne boo leen ko joxoon dañ koy def ak amoon am compétence yeeg yëpp parce que lan loolu moom moo doon seen rêve wala loolu mooy seen compétence nga dem jóge sax. ci suñu liggéey de tous les jours. <laughs> nga ñëw Afrique gouvernement yi am yëpp. Mm. soo fi da ngay nekk xarit. Mm. ma nekk sa xarit ñuy campagne. Mm-hmm. ay at. nga nekk président rek. Mm. fal ma ministre. ah. est-ce que. nee nañu ko fal ku nekk. falal koo wóolu. ku fal ku nekk falal say mbokk. ndax nee na sa xarit boobu mérité na place dégg dégg lu ma la de. papa est-ce que doo may ma eggali ma ñëw. ku falu falal koo wóolu. ku falu falal say mbokk. Ah, ku falu falal koo xam ne. soo amee nguur gi mu am ko soo ñàkkee nguur gi mu ñàkk bu ñuy def bu ñuy def am ku sa mbokk falu bi nga mhm. baax na léegi <laughs> bu fekkee tamit ku falu xam nga pareegu ba peer waaw ba fal ku wóolu léegi xam nga pareegu <laughs> ma sax peer xam nga pareegu ma rek nga këf ma ni ma koy fal falal waaw sauf que nag. waaw noonu la Kajoor daan def léegi d' accord ni. ñi ngi ci société boo xamante ni daa metti lool dañoo war a liggéey pour jëmale ko kanam d' accord nga mm-hmm. kon sa xarit boobu mën nga koo teg feneen fu viwam di amélioré wu mais nga teg ministre de de la santé. nga teg fa ku jàng santé. ministre des enfants.